ñoom ñaar ku ci daan jël pee ndax kii di Zos mën nañ ni moo nekk ci ginnaaw ndax kuy gi moo moo nekk avant dernier en ce moment ñaar ñii ku ci daan jël pee Ama Baldé ak Tapha Tine ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo Ama Baldé moo ñu woon ginnaaw Tapha Tine la ñu jàkkaarloo Ama mi ngi déplacé waag moom Ama wane preuve ci ay moroomam waaye it wane boppam ci digganteem ak Malick Niang Ama Baldé ak Tapha Tine mbokk yi Tapha Ama dugg na ci garde bi sànni na góos Ama Baldé ak Tapha Tine mbokk yi Ama duggaat na ci garde bi door na ci biir bi ndax Ama daa bëgg a fekk si Tapha Tine ci xeex bi Ama Baldé Tapha Tine mbokk yi Ama duggu na ci garde bi dooraat na góos duraat laa ilaaha mbokk yi ñoom ñaar. Ama Baldé laa ilaha illallah alaaj bekaay sama xel a ngi ci yow Ama a Tafatine sànni na góos Ama ak Tafatine ñoom ñaar Ama jël na tànku Tafatine dëj na ko daan na kii bu ñu Ama Baldé daan na Tafatine dem ci kaw Tapha Tine Bruno Ama Baldé daan na Tapha Tine jël bu rëy wala xale jigéen ñi ngi jaay ni lu ne ñu koy def la ilaha illallah sant yàlla la wax waa Pikine la wax waa Pikine bu baax a baax waa Pikine day sant bu baax a. yàlla ñu koy may yàlla bu ñu ko xaj mu suur sama ndey. yàlla la yàlla fay sa xol muhammad alhamdulillahi rabbil ngi sant damay sant yàlla bu baax li ma ñaan ci borom yëpp defal li ma ñaan suñu borom yëpp defal nu ma ko defal nu ma dara